comme un peu sol sëñ buub ay homme d'affaires lañu mhm. mais li li am solo mooy xoolali xew euh, euh, géejawaay mhm. Aliou Sall ñu ba ma ko ne mhm. Aliou Sall euh, li leer mooy il fait les frais Euh, euh, euh, de de de de de sa filiation avec Macky Sall. mais suñu confrère Ahmed Khalifa Ahmed Aïdara aussi créé na surprise ah ñu bëri jëlee yoon toon. candidature au sérieux non non non créé surprise parce que <laughs> j'avoue que même man mii wax dëgg yàlla man dama ko yeb lool nag sama doom bàjjen la <laughs> wax dëgg yàlla. créé na surprise daf tey je pense que bett nañu bari bari bari bari parce que. <laughs> kenn yaakaaru mu xam nga mooy li ma la wax gis nga sénégalais yi uh-huh. danoo mere euh, Macky Sall mere goo xam ne mm. njàpp bi laay man waroon naa dem dugg yeewu askan wi kon dañ may fal est-ce que tamit si revue de presse am est-ce que attan na ko euh, commune euh, mais mais mais gis nga maa fi uh-huh. xam nga man lan laa gëm man ma gëm ne li olof di wax naan yàlla gémmiñ gu mu xar du def na prévoir na fóor a dugg mm-hmm. fii ki amul benn école bi ñu booba xam ne dañuy jàngale comment être maire mm. amul benn école boo xam ne dañuy jàngale comment être président. mais ay euh, euh, sato aussi euh, être maire aussi mun nañu wax ne dafa am ay profil yoo xam ne ñoo ko wax de est ce que nekkul tamit loolu moo retardé suñu ay collectivités territoriales aussi sato waaw mais mais quand même am na peut être li nga wax nii man mënuma ko écarter karément mhm. waaye dama jàpp tamit ne dara buñ la ko joxee. Euh, ñun ñii ñëpp man mii ba may am poste de responsabilité jàng ko mhm. si la moom wóolal tamit j'étais très jeune j'avais même pas à peine vingt ans. Mhm. donc euh, ñu ñu jox ma responsabilité. Mhm. mais yow yaa am sa fullaak fayda ba xam ne lii euh, am na loo xam ne donc da ko war a mottali nga mottali ko. mais mairie bees yi nga gis ba si Sonko mi Sonko lan la jiite. mais day dem jàngiwaat ko. parce que xam comme ni ñu la waxee xam nga gor. boo ko dénkee day góor ba ba ba gor fa dara. gis nga ku ñu dénk te fekk yow mënoo jàngoo amoo formation euh, adéquate bi te te jéemoo ci yow dara foofu nga échoué mais bu ñu la dénkee jox la yow kenn ku ne yow yaa xam sa bopp xam nga ne am nga man kat lii mën naa ko mais am naa fii laa mën a yem li ci des nag yow yaay toog nag jox sa bopp ay outils ak ay mécanismes yoo xam ne ñoo lay permettre nga mu appuyer sur les bons leviers mm-hmm. mais li am solo ba am solo mooy que euh, euh, ñoom Amet ñooñu Amet muy euh, di. Ndoye Ba Ndoye baax les gens des médias aussi. wane voilà ñooñu ak ah. Amadou Ba bu bu Laas Missira. ok il paraît que Khadif Samb est-ce que c'est. si Khadif Samb. <laughs> ça m'a fait tellement rire. xam nga yaa ngi mais a a neex. mais <laughs> gën a neex te pourtant ñooñu nag Ndiaye. Ah. man gëm naa ne. Euh, euh, gis nga ni ñu créé surprise nii nit ñi di si reetaan ils vont ils vont faire des étincelles parce que ay borom jom lañu ba ba pare comme ni ma la waxee rek euh, ma fille le journalisme comme les médias mène à tout à condition d'en sortir te boo xoolee ay dara ak Xaadimu Sàmb mhm. euh, euh, de même que Ndoye Bane mhm. euh, ñoom li tax ñu ñu ñu am li ñu am popularité bi ñu am si sénégalais yi la mhm. ndax dañuy def ay émission yoo xam ne nii day wax ay émission de proximité ñuy wax sénégalais directement sénégalais yi gëm leen wóolu leen parce que sénégalais yi ñoo wóolul ñu fi ne wóolu ñoom Ameth wóolu Ndoye Bane wóolu Xaadimu Sàmb nit ñi kat dañoo màggandoo ak ñoom ñuy def ay émission yoo xam ne day dugg suñu biir xool bi kon ñii nañ leen essayé xool xam nga fii essayé moo fi nekk ndax confirmation bi législative yaa ngi yaa ngi ñëw. Mm-hmm. te ñi nga gis ñu mos nii. Mm. local mais après dañu bëgg dëgg seen bopp <laughs> bëgg nekk député maire bëgg nekk leneen leneen leneen. est-ce que euh, genre ku mel ni comme sama euh, grand yi nga xam ne ñu ngi yuuxu un peu partout duñu duñu dugg ku euh, syndicaliste enseignant yi nga xam ne. mais mais <laughs> am na koo xam ne da nga koy invité tout le temps <laughs> bëgguma tudd ndaxte sawar ma ci ay affaire am mais quand même wax la gis nga député yi xam nga yaa ngi yuuxu ci ñoom ay dara mais bu législative ñëwee ci ngay bàyyi àddina. mais da nga gis ñoom gii ma ne Sagna ñoo ñëpp te lañu bëgg ñoom Dambo ñoo loolu loolu lañu bëgg ah, ah mais je t'assure ñoom député lañu bëgg parce que xam nga quand même wax la dara maa fii uh-huh. gis nga fii euh, euh, combat citoyen mm-hmm. euh, dafa am ñoo xam ne dafa dafa dafa sax ci seen xol mm-hmm. ñu bëgg ko loolu muy dëgg si ñoom mm-hmm. mais am na ñoo xam ne levier lañ ko def parce que nag encore une fois Sonko joxe ne exemple de am na ñoo xam ne ñaan mais tiens Sonko dañ ko dàqoon mu doon peut-être il avait un salaire de je sais pas parce que bon inspecteur de de de kii ñoom bëri nañu xaalis mais ñu ne ah xaaral ñu dàq ko mu dem mu dem assemblée nationale profité ci loolu dem vraiment am fi benn un million et quelques par mois mm. am passeport diplomate am nangam mais loolu ça crée des vocations c'est vrai am na ñoo xam ne ñoo xam parce que xam nga nag de pression rek mais mairie euh, fi nekkee ñu bëri sàcc terrain sàcc lii mm-hmm. jaay fii jaay suuf recette marché kar karañ karañ mais kese kese kese donc ku ci jub donc moo tax temps looy dégg ku jël ne la sama salaire maye naa sama salaire ñaata la mm-hmm. ay trois cent et quelques mille te fekk na ñoom am nañu déjà leneen naa ah, xam nga ay trois cent quelque mille foo leen fekk fa eh, bàyyi dégg naa maam booy jow tam mayee eh, na trois cent quelque il a tout gagné pour parce que xam man euh, li ma li ma leer mooy xam nga Macky Sall xale dëkk mais mag a koy daan mm-hmm. te képp ku mës a Macky Sall mës a nommé sëga Macky Sall ñi mu nomewul muy waa opposition bi nga xam ñoom ay homme d'affaires lañu ku mu ci bëgg a paña paña la mm-hmm. taxaw feeree taxaw làqatu yónnee la fisc yónnee la nangam mm-hmm. nga ni pat mu mu xoj la ngay gokki nànk mhm. te doo yuuxu mhm. sëgam ñooñu nga xam ne amuñu décret amuñu dara la poñe mais waxuma la ñoo xam ne ay ñoom mambayeeku ñoo ñu def xam ne ñoom moo ma leen nommé mhm. te Macky ko neexee la xaw ma ci dara yëguma ci dara di fekk lépp la donc ñoom mamba mambay bu amee fitu ak audace kere liste parallèle am ànd ceeg ña mu ci ànd ak gis nga campagne bu rëy bi mu def ah. il a sorti énormément d'argent. énormément d'argent surtout wàllu communication. waaw mhm. énormément ku ñu daw ay ponkal la àndal. Mhm. Macky Sall ferme les yeux ne xam nga bu ko maam bay woon mais am na ñoo xam ne nii dañoo bëggoon ba kii mii DG Foire bii Saliou Keita. Mhm. mais fii la menacé woon ci ñu rapidement mu rentré dans am na ñoo xam ne Macky Sall da a woo euh, Kaffrine Macky daa woote. daawo euh, kaf kii ñaar ñee ne euh, euh, kii nu tudd wilaan jëlal lee jox li kii lale ñee ay ñoom Malick Sall ñooñu il paraît dañoo bëggoon ñoo ñu mu woo leen mm-hmm. mais bu bàyyee Mame Mbaye da ngaa neex wax ak Macky Sall mos benn allo Macky Macky Sall ci Mame Mbaye ñaar arrêté yàlla mu arrêté mm-hmm. mais pataara gi mu def da ngaa neex te boo boo xoolee Mame Mbaye benn adversaire la muy muy Diouf Sarr mm-hmm. Mambay la mu campagne lépp Diouf Sarr la pilone <laughs> te xoolal Diouf Diouf ñemewul woon sa tontu Mambay parce que xam nañ tontu Mambay mooy tontu Macky Sall. Mhm. amoo loolu dafa garaaw. Mhm. yow ñu jox Mambay moyen yu foor dëgër te Diouf mais gëw ma ne jox nañ ko moyen yu bari mhm. mais Mambay Mambay alal la yow la campagne daal di am nag ligne de mire Diouf. li tax may la Mame Mbaye perdul dara te dina leer ci kanam perdul dara parce que li mu def da cee am ndigal. dem turu bu feet Mame Mbaye turu bu feet la woon. turu bu leen a feetu Diouf. Euh, euh, mhm. gañe na nee na pat toog noppi jàpp ñaamaram. il n'a rien perdu. te dina defaruwaat. fexe ba ba dugg ci. Euh, euh, euh, mais <laughs> ah, voilà. mais mais Aïssatou Touba Touba mu nekk casse-tête pour le pouvoir en hmm. place Macky Sall malgré réalisation yi nga xam ne def na ko. gis hmm. nga inauguration bi nga xam ne mujjee na ko def si bile hôpital. Hmm. gis kaddu yum si yëkkati woon sax di wax ne fu mu toll nii moom opposition mu benn neen fi taxaw benn listre mu nekk benn bokk yaakaar. qu'est-ce qui justifie le fait que Touba ils ont du mal à, à adapter le, la politique du président Macky Sall. xam nga pour man euh, euh, Touba. dañu am euh, vote affectif. Macky Sall jusqu'ici ba mu ba mu toogee ba comme ni nga ko waxee. mënul fexe ba gagner le cœur euh, en tout cas de waa de la population de Touba. Mhm. loolu nag pour man c'est extrêmement profond. Mhm. Euh, ndax dama jàpp ne euh, mooy comme li ma yàgg wax rek te gëm ko gis nga maa fi mhm. ay moyens en voiture en ay ay hôpitaux ay ay ay hôpitaux ak ay mhm. terre ak ay BRT ak mhm. yooyu loolu affaire bi affaire bi feneen la affaire bi mooy jege sa peuple jege waa Touba noonu la fay gis euh, ci anam boo xam ne du du anamu dóor ndax xam nga ay inauguré yooyu pour neexalaate loolu dafa dafa mel ne comme yow maa fii ku ñëw doon joxe saxal tàngal mant mhm. te fekk dafa am lu mu bëgg si yow kooku yemul la koo xam ne nii euh, euh, xaaru muy muy noor ak muy nawet mi ngi sa wet mhm. parce que Macky Sall problème yi mu am ak Touba la am ak Sénégal gi yëpp mhm. Macky Sall n'est pas un président proche de son peuple il ne l'a jamais été contrairement à quelqu'un comme Wade Macky Sall pas populaire léegi nag euh, il peut ce que flatteur yi muy yi muy fay jaykat yooyu nga xam ne ñoo nekk si wetam ay ñoom saleek yooyu et cetera ñooy nga xam ne ñu koy jay ñooy nekk si wetam di ko jay ñooy bu ñu ko gëmloo wee ne sénégalais dañu laa bëgg peuple bëgg nañ la mu gëm ko <coughs> an la mhm. te euh, pour man ñi koy yàqal mhm. bëri na xoolal euh, euh, élection yi ministre de l' intérieur bi mhm. mais on n'a jamais vu élection yi ñu toll avec un ministre de l' intérieur presque absent déggoo ko mu communiqué Euh, matériel euh, euh, nit ñi li ñuy voté sax xamuñu ko. Mhm. xoolal li xew Grand Yoff. Mhm. centre foyer des jeunes xaw ma lan de Grand Yoff. Mhm. centre foyer des jeunes de Grand Yoff boobu yaa ngi koy gis. yaa ngi koy yaa ngi gis ci ci internet bi. mu nekk ay ay images yu yu yu ay images yu pathétique. Euh, ay abri provisoire mhm. ñu nekk ay briques jël milice teg ko ci briques yi mhm. te milice ba ne woon yëpp baax na mhm. ministre de l'intérieur boo xam ne nii qui euh, euh, n'aime pas la communication qui ne sait même pas d'en yoonam nekku si moom tout ce qui l'intéresse c'est na nekk soo si wetu patron bi mun naa ko defal ak bul def def bàyyi la bul wax ak yooyu xam nga façon yu noonu ndax yu mel noonu Macky Sall fa xeet nit yooyu ñooy tax ba Euh, euh, askanam gën koo sori mhm. te askan woo sori nag moo indi li xew Touba mhm, mhm. mooy indi li xew Sénégal mooy indi vote sanction moo indi ñoom ñëpp ñu daw bala fa Juste rappeler aux internautes, yéen a ngi suivre seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 et je avec euh, Aïssatou Diop de la TFM ñu amal waxtaan bu am solo par rapport ak euh, tolluwaayum réewum Sénégal rawatina élection locale yi nga xam ne génn nañ si mu nekkoon élection yoo xam ne euh, bëri na coow lool après ñu gis ne carrément résultat yi mu mel ni comme le président Macky Sall ak it ñoom ont par le peuple sénégalais mu amaat beneen reconfiguration politique boo xam ne rek euh, ñu ngi ko fas yéene nemmeeku si euh, dans la scène euh, politique sénégalaise si reconfiguration politique boobu Aïssatou la bëgg ñu ñëw Barthélémy Diaz maire de de Dakar Khalifa Ababacar Sall avenir politique de Khalifa Ababacar Sall est-ce que mën nañoo wax aussi son avenir politique maintenant est en jeu. waaw xam nga Khalifa Sall son avenir politique a été en jeu. Euh, dès l'instant où euh, il a choisi euh, de ne pas se plier en tout cas au désir de voilà donc mu ça lui a coûté ce que ça a coûté la prison et cetera. Mm-hmm. et puis benn inéligibilité. Mm-hmm. Khalifa a joué gros ci. locales yi. Mm-hmm. parce que tey bu euh, euh, perdroon euh, mairie Dakar. Mhm. moom it sa carrière fa lay yem comme ni fa ñeneen ñëpp yeme et sa relation avec Soham Wardini sax. daf koy jël daf koy parce que. sa uh-huh. sa tout simplement foofu il a il la pesé le pour et le contre. Mhm. mu naa jël Barthélemy et quand même il faut reconnaître à euh, à l'issue euh, du scrutin qui mmh. ne mm-hmm. s'est pas trompé, trompé parce que tout simplement euh, tey jii dafa lii nii dafa relancer carrière politique Khalifa mm-hmm. ndaxte daf ko daf ko dugalaat ci échiquier bi mm-hmm. ni mu ko dugalaatee ci échiquier bi mooy euh, c'est son poulain qui à la mairie de Dakar mel na ne moo fa nekk léegi nag Macky Sall va obligé Euh, de compter avec Khalifa Sall. Khalifa Sall, qui ne l'oublions a avoué urbi orbi qu'il entretient d'excellentes relations avec Macky Sall. Mhm. Macky Sall est allé euh, dem na seeti ji euh, jaale ji mhm. yaa ngi dégg jaale boobu nag yaa à manger et à boire. Mhm. te comme ni ma lay waxee rek politique dëgg-dëgg liñ naa naan réel politique dafa am lu ñu def ci kaw lu lu bëri ñu def ci suuf. te lool dina leer ci kanam. Mhm. Euh, yàgg nga fi dégg ñu naan ay amnistie ay mhm. ceci ay cela. Mhm. donc loolu yëpp maa fi ce n'est pas à prendre à la légère. Khalifa Sall moom il a tiré son épingle du jeu. Khalifa euh, ñi mu àndal ak Sonko. ñi perte kay li ma gëm la ñi perte mooy ñoom Malick Gakou. Euh, ñoom Aïda Mbodj. Déthié Fall. Abdoul Mbaye. moom Lamine Diallo. on les entend plus. non mhm. mais lu ñu waxati. waaw Thierno Alassane Sall euh, def na lu rëy. Mhm. dem na Thiès daaneel na Idrissa Seck ci bureau de Fatam mhm. Idrissa sekk nag mooy le grand perdant. si sa sekk boobu laa bëgg ñëw ah Thiès sa sekk nga xam ne mun nañu wax ne euh, benn baab la woon.